ci yéenekaay yi ñu koy ubbee ak journal bu l'observateur mu daal di ñëw ak ñun ci nakar ak tiis gi nga xamante ne ni moom la suñu mbokk journaliste si amee boobu ba léegi muy génn àdduna ki nga xamante ne ni moom mooy Ndatte Diop bokkoon ci groupe GFM ñu gënoon ko ràññee ci rajo RFM ci jamono itamit bi muy doog a door dooree woon na ci fi nga xamante ni moom mooy ci Walfadjri ñu ngi koy rendre omage di ko ñaanal fi mu jëm gënal ko lool fi mu jóge ak mboolem jullit yi nga xamante ne ni ñoom dafa fekk itam di ko jaale waa group GFM di ko jaale monde ñi nga xamante ne ni ñu ngi ci milieu journalisme. ba tey ñu desandi ci journal bii di l'observateur mu daal di ñëw ak ñun ci xew-xew diine gi nga xamante ni amoon na démb ci ci Tiwaawan ziar général Serigne Babacar Sy Mansour ak ay njoñam ak i taalibeem ak i njabootu Serigne kër si ñoom ñëpp daje woon nañu doon def li nga xamante ni moom mooy ziar général waaye nag ñu ràññee ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi ku ci mel ni Barthélemy Diaz ku ci mel ni ki nga xamante ne nii moom mooy xalifa Ababacar Sall demoon nañu fa waaye nag am na ay kàddu yoo xamee ni jib na fa di xamal que ni di di yëgal ni ki nga xamante moom mooy la xalif général de Tidiane di ko yëgal ki nga xamante moom mooy suñu njiitum réew Macky Sall fi mu toll nii li mu teg ci ndodul Ousmane Sonko diis na loolu mi ngi koy jéem a faagaagal ci boor bu ne waaye nag ñoom dinañ ci taxaw te lépp loo xamante ne nii mun naa empêcher suñu njiitum réew mu am dara ci Ousmane Sonko rek ñoom dinañ ci taxaw l'observateur daal di des ak ñun ci ki nga xamante moom mooy suñu njiitum réew ak parti bii di Benno fi mu toll nii nag ñu ngi booloo ngir nag defaraat li nga xamante ne ni moom mooy seen ëllëgu politique. moo tax ñu ne am na bataay bu méttee métti boo xamante ne nii xew na sax ci loolu ci diwaanu Kébémer waaye leneen la nga xamante ne nii xew na ci diwaanu tuuba am na ay nit yoo xamante ne jàpp nañu leen fa li ko waral nag mooy jàmmaarloo gi nga xamante ni amoon na fa ba sax homme de tenue doon fa sànni ay grenade lacrymogène moo tax l'observateur ñëw ak ñun ci li nga xamante ne moom absence bi ñu fa ràññee ci yenn ci leader yi ku ci mel ni Benoît Sambou ak Doudou Ka ndax yaakaar naa ne fi mu toll nii ñoom itamit seeni taxawaay dinañu ko soxla foofu l'observateur dañu yëgal ni am na ay arnaque yoo xamante ne dañu koy ràññee ci réseau sociaux yi muy def ravage bu baax a baax maanaam tontine iPhone ci net bi la ñu koy amalee dañuy waxante seeni ay wax ñu déggoo ci prix pour ñu indi la téléphone iPhone waaye nag fi ngay mujjee ak ñoom mooy yow doo leen gis doo am téléphone te da ngay ñàkk sa xaalis leneen la gën a fas loolu ci journal bii di l'Observateur mu xewee fële ca Mbegere ci diwaanu Daaru Muxti match de football moo amoon ci diggante ay ndaw di football seen biir doomu ndeyam daal di koy taakale mu mer lool ci taakale gi nga xamante ni xaritam bi taakale na ko moom moom gone gi mu jàppal ko ci ab mer xeex ak moom ba daal di ko ciy gaañ mu mujj ci ñàkk ba kanam yaakaar naa ni lii tamit war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu dellu siwaat xel yi te xam ni bu ñu boolee bu ñu waxee dañuy football dañoo war a bokk ndey bokk bàyyi lu ci mënti am mu yem ci biir terrain bi ñu ngi koy ñaanal suñu borom jéggal ko way fal suuf ci kawam. ñu jàll ci journal bi di Vox Populi mu daal di ñëw ak ñun ci kaw kawteef gi nga xamante ne nii xew na ci diwaanu Linguère maanaam Saint-Louis Chérif Ka daal di def nag ab tojange boo xamante ne nii tojange bu rëy la Chérif Ka toll ci 49 ans. daal di tiire ab fetal ki nga xamante ni moom mooy Aliou toll ci 14 ans gaañ ki nga xamante ni moom mooy El Ka tollu ci 13 ans li waral gaañ-gaañ yooyu nag mooy dañoo sàcc ñeenti bëyam foofee ci diwaanu Linguère si diwaanu Saint-Louis métit xol jàpp ko mu mer ci loolu ba daal di def jéey ki nga xamante ne ni mun naa perturber loolu àddunam ndax yaakaar naa ni yoon du ci bàyyi mu sedd benn yoon dina def liggéeyam comme ni mu waree ndax ay bakkan la faat ci wàllu politique ci diwaanu Thiès Habib ñaa journal bu Vox Populi dalal ko mu yëkkati ay kàddoom nag ci élection locale yi nga xamante ni moom mooy mujj jàll naka la déroulé ci biir Thiès nen nag am na ay erreur de casting ci diwaanu Thiès ndax yaakaar naa ni nag pour moom ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu jàpp takk leen ca bopp ba foofu ci diwaanu Thiès nekkuñu woon nit ñi nga xamante ne nii ñoom lañ fa waroon a teg nekkuñu nit ñoo xamante ne nii convaincre nañu askan wi à ce leen ndax yaakaar naa ni waroon nañoo toog waxtaanee mbir moom ba tey mbokk yi ñu desandi rek ak yéen ci journal bi di Vox Populi mu daal di ñëw ak yéen ci ki nga xamante ne ni moom mooy présidente du CODAS di wuyoo turu Françoise Hélène Gaye mu yëkkati nag ay baaraamu di ko joxe ki nga xamante ni moom mooy président bi parti politique bu Pastef di Ousmane Sonko li mu ñu xamal rek nee na Ousmane Sonko mi ngi rey ki nga xamante ne ni moom mooy Adji Raby Sarr ndaxte jàpp nañ ni am na ay nit yoo xamante ne ni Ousmane Sonko moo leen di fay wala ñenn ci waa kër Sonko ñoom ñoo leen di fay ñu nekk ci réseau sociaux yi. di def ay commentaire wala di yëkkati ay tuuma di ko teg ci ki nga xamante ni moom mooy ndoddu Adji Sarr mu nekk loo xamante ni mun naa perturber àdduna Adji Sarr waaye mun na koo def góomu xol mu koy misère ba keroog muy génn àddina mu nekk loo xamante ne ni am na ci beneen wàllu ñoo xamante ne ni d'accord ñu ak moom ci li nga xamante ne ni moom loolu lay wax waaye ba tey rek ci li nga xamante ne nii moom soo ko waxoon na ko ci entretien bi nga xamante ni amoon noonu amaloon na ko jëkk ci woon ay kàddu ci passeport diplomatique am moo tax nag moom mi nga xamante ni moom mooy le député maire fële ca région bu Ziguinchor ginnaaw kàddoom yooyu ki nga xamante ne nii moom mooy le ministre des affaires étrangères daal dinay nag am ab naqar ak métit goo xamante ni am na ko jëmale ko ci avocat wu sonk yi ndax yaakaar na ne ni kàddu yi moom warutoon a jibee noonu waaye ba tey am na ay dëgg yoo xamante ne ni itamit nag biir na ci journal bi nga xamante ne ni moom mooy Vox Populi ki ko biiral nag du kenn ku dul Mballo Dia Thiam di président de l'ASAS nekk secretaire général fi nga xamante ne moom mooy SUTSAS li mu ñuy xamal rek nee na ñi nga xamante ne ni ñoom muy liggéeyee ci santé ak action sociale yi fi mu toll nii nag seen ay salaire yaakaar nañu ni war nañ leen mën a yokku ndaxte nag li leen di fay pour ñoom néew na loolu liñ leen di fay war nañu koo mën a yokku ba ñoom ñu gën cee gis seen bopp. waaye démb ci ziar général bi Vox Populi li mu ñuy xamal ne suñu njiitum réew ci diwaanu Tivaouane daal dina fay dolli nag un milliard ngir nag ñu mën a gën a mën a ñoŋaraat li nga xamante ni moom mooy jumaa ji nga xamante ni ñu ngi koy defaraat yaakaar naa ni lii nag moom lu neex la lu jara sante yàlla la libération daal di ñëw ak ñun ci ba tey rek ci comme ni ci Vox Populi ñëwee ci génnub àdduna ki nga xamante ni moom mooy Aliou Ka mi toll ci treize ans dong ki ko faat nag du kenn ku dul Chérif Ka toll ci quarante neuf ans li waral mu faat ko parce que nag dañu ne dafa ñoo sàcc ay bëyam lu toll ci ñeenti bëy ci diwaanu Linguère foofee ca Saint-Louis yaakaar naa ni nag bu yooyu amee yoon dina ci def liggéey ba nga xamante ne nii war na ko cee def ci diwaanu Kédougou ki nga xamante ni moom mooy Bébé Lassana boobu ba tey nag dafa réer ay mbokkam depuis le 10 mars à 23h ki nga xamante ne nii moom mooy Bébé Lassana daal dina réer ay mbokkam boobu ak léegi nag yaakaar naa ni ñu ngi koy wër xale bi toll na nag ci sept mois dong yaakaar naa ni xale bu toll ci sept mois moom mënut a yóbbu boppam fenn fu mu ne nit a ko fa teg di ñaan yàlla rek suñu borom nit ko ba mu feeñ ay waajuram daal di ciy jot te buñ ciy jot ñu jot ci ak bakkan jot ci ci anam goo xamante ne nii anam bu leen soob la ndax yaakaar naa ni metti na waaye nag yàlla ci suñu borom teg loxoom. ci sport ñu daal di koy fësal ak journal bi nga xamante ne nii moom mooy journal bu mu daal di ñëw ak ñun ci mondial u ci xale yi jigéen ñi maanaam ci daam yi poule Q Sénégal doon na joué dem marsam bu njëkk digganteem ak Nigéria malheureusement Nigéria daal ne door Sénégal 3-1 moo tax ñu ne gaynde yi perte nañu seen première match boo xamante ne nii moom la ñu doon xaar ci ñoom waaye ñu ngi leen di ñaanal rek fi mu toll nii moom yëf yi demagul fenn nañu gën a góorgóorlu suñu borom daal di leen di teg loxo. leneen la nga xamante ne nii fës na loolu muy première titularisation ki nga xamante ni mooy Nampalys Mendy ci équipe am ñu ko ci ñaanal rek succès. ak jàmm ci diwaanu Chelsea itamit le meilleur gardien du monde Edouard Mendy daal dina dinay ci beneen clean sheet di se di onzième clean sheet am yaakaar naa ni nag moom mi ngi wane ni il le meilleur et il le meilleur ñu koy ñaanal suñu borom bi daal di koy kattanal. championnat Angleterre Crystal Palace dina joué tey ak Manchester City à partir de vingt moo tax journal bi di laajte mu ne. ku Kouyaté joue pour Sadio Mané ndax yaakaar naa ni question la boo xamante ne ni itamit bari na ñoo xamante ne ñu ngi ci biir réew mi sax. di ko posé wu waaye nag jàmm rek ak salaam lañ leen di ñaanal suñu borom bi jàppale leen ñoom ñëpp lépp luy seen bébét ci réew mi rek ak ci wàllu sport suñu borom bi nangul leen ko suñu làmb lañu koy daal di jeexalee mu daal ñëw ak ñun face to face bi amoon ci diggante Bombardier ak Eumeu seen waaye nag bàyyiwuñu benn yoon mystique bi ginnaaw ñoom ñaan ñëpp faratal nañu ko ñoom ñaan ñëpp saf nañ ci sàpp waaye nag ku wax làmb wax mystique parce que parti la boo xamante ni du parti bu neex a bàyyi Diène Diouf Kairé ginnaaw bi mu daanee booy Bawol daan Marley daan Modou Anta fi mu toll nii nag bëtam yi ak xelam yëpp du koy jël daal di koy teg ci Siteu yaakaar naa ni combat la boo xamante ne nii bari nañu ay nit yoo xam ne ñu ngi ci réew mi d'accord ci boobee comme ni ci ñeneen ñi ñàkkee d'accord Fils de Balla mooy avertir Gora Sock itamit seen combat bi nga xamante ne ni Jamaïcain moo ko tëgg li mu koy xamal rek nee na ko jàmm moom doo xam ba keroog ñu dugg ci biir géew bi doo am jàmm. bu ma la daanee nag ba pare ba ñibbi sama kër dinga nga am jàmm waaye xam nga ni kàddu mbër moom yaakaar naa ni ku nekk da ngay xool naka ngay jaayee sa combat mbokk yi leerali loolu rek la woon di la ñaanal jàmm tey di ci jéggalu nag lépp loo xamante ni dëng na ci lu ci jub ñu santee ko suñu borom bi te di leen jox dig daje ba suba jàmm incha allahu rabbi jërë ngeen jëf mbokk yi